dana bokk yàlla na fi gudd. alhamdulilah rabbil alamin. wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin. sayyidina wa mawlana muhammadin al makin. wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din. mbokk yi asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci détail nuyoo bi ñu koy jiital suñu kilifa bi toog muy sëriñ Cheikh Maodo Fawla ibnu Cheikh Sohayb radiyallahu anhu di nuyu soxna Maymuna fi nga xam ni mooy taw sëñ Saam bu jigéen te teel ci jotaay seen rakk yi ñu fi nekkal ak seeni doom di nuyu mboolem bokki taalibe yi fii ci réew di nuyu ñi nga xam ne ñoo woote jotaay bii tey ak ñi leen ci jàppale di ñaan yàlla mu defal leen ci tawfiq mu mel ne jotaay bu mel nii jotaay bu am solo la ci diine ndax mbir day def ne boo ko jàppalewul rek xeex nga ko boo ko yëgee ak boo ko yëgut mbir boo ko jàppalewul rek xeex nga ko boo ko yëgee ak boo ko yëgut te diine dafa la jàppale ci jamono bu ne na ci jàppale diine nag nit yi diine yi di jéem a takktoo ñoom seen bopp di indi référence yi ñu suñu borom boole ku mel ni Serigne Touba fàttaliku ko fàttaliku yàlla lay tekki fàttaliku ko taxawal di diine lay tekki bu ñu jëlee kenn ci ak njabootam muy Serigne Souhaïbou radiyallahu anhu ni cërale nañ ko bis bi loolu li muy tekki lépp mooy dërëm di gënul gaal gi Serigne Touba lu tax a kii ab univers ab université la ci université Serigne Touba daan jàngale kon loolu ñu di ko bàyyi xel nag jullit moom lii ab diplôme am mooy jikkoom diplôme bu jullit mooy aw melokaan diplôme bu jullit mooy dëggu ak sellal ak ñëpp digganteem ak boroomam ñëpp ak i morom mooy mandarga mi ab jullit war di xëntewoo ñu ne foo ko xàmmee def la ko mu mel ni nag adduna dafa am lu baaxoo doxe mu yàq adduna yàqu la baaxoon doxe ak dëng mu mel ni kon suñu borom daf noo indi ci kaw suuf ngir ñuy fexee jubbanti yàqu-yàqu yi doomu yàlla moo ko indi ci kaw suuf di ko jaamuloo ci muy jéem a jubbanti yàqu-yàqu yi jéem a defaraat jéem rek li fekk yaa ngi jéem rek yaa ngi ci yoon ba suñu borom bëggoon ci yow li fekk nit ki mi ngi jéem a defar ñu ngi ci yoon war suma borom bëggoon ci moom kon yàlla dañoo indi ci àdduna ngir dina defar lu yàqu-yàqu mënuñ ko defar waaye jéem gi mooy jàmm loolu lañ bu jubbanti ko lépp bu jubbanti ko wutit noonu wàcc la def la nañ ko kon jéem gi mooy fart di jéem a defar fu ñu toll mooy fart depuis yàlla wàccee sunu àdduna ci kaw suuf ak tey adduna ñaari programme lay doxe muy bu defaroo tuuti bu defaroo benn bis yàquwaat fukki fan benn bis bu defar te yàquwaat fukki fan kon bi yàlla wàccee aadama ci kaw suuf ak tey loolu mooy liy dox adduna saa bu defaroo benn bis fukki fan dina ko yàquwaat saa bu leeru dëgg ñëwee leeru dëgg ba leeral adduna bi ci benn bis ak lëndëm lu ñëwaat lëndëmaat lu mat fukki fan loolu mooy doxiinu adduna ci ni ko suñu borom dégg mu mel ni kon defar moo ñu fi indi wala jéem a defar ki gën a rëy ci ku taarix histoire xam ci ku mas a ñëw fii ngir defar mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi mooy ki gën a rëy si kuñ xam ci histoire commencé ñëw fii ngir defar te moo ne moom la ba mu defaree ba ba muy defar ca biir jamono yi muy defar rek yàqu-yàqu yaa nga taxaw fekk yàqu ginnaaw bu mu defaree ba noppi it si diirub ñaar fukki at ak ñett yëm fi am di woote ginnaaw bu mu defaree ba noppi diir bu gàtt lan lan defar bari na lu ci yàquwaat loo xamante ni mu ngi si koo xam moo tax adduna noonu la baaxoo ndax yonent bi ginnaaw bu mu defaree da doon boole mbooloo da doon takk da doon fekk ñuy bañante di fekk ci biir di fekk ñuy xeebante mu defar ba mboo mbooloo mu ngeen doon ñaar ñu bokk ndey ak baay bu gàtt na ba lépp ni cocc Aboubacar wóotu ko lépp ni cocc Omar wóotu lépp mel na meloon bi Ousmane ñëwee juróom benni at yu jëkk yi dara sëpp ko juróom benni at ñaari li amaat ci la rëng-rëng ji tàmbali ba fii mu toll wax rëng-rëng ji ci biir diine ji booba la tàmbali ba fii mu toll wax yéen kon yàlla moo binde noonu adduna la mooy defar mooy jéem a defar waaye nag lay defar moom moo koy defar bu ko jubluwul si defee xam waaye nag jéem gi daal mooy fàttali mu mel ni Serigne Touba radiyallahu anhu ci bu dee gannaaw yàlla bi ku fi ngir defar xamuñ ku gën a rëy Serigne waaye nag gannaaw bu mu defaree ba dem dañ fi jógee léegi yowut te ku ne xam ne li sa li sa tuwaat murit ba mu doon sos moom ak murit bi sos waat ginnaaw am na loolu différence bu mel ni bu ñëwoon ne anam murit yi ñu ne ko ñu ngi nii dañ ne ah waaw ndax ndax ñoom waaw kon ñu di ko bàyyi ndax bari na ku bañ diine te lu caagéen dafa xam diine bañ ko waaye dafa xam kuy tuddoo diine ab jullit la gis mu def ko jëf ju cuune mu doxee ko jàpp ni kon diine jullit bari na ko bañ diine te ko ci ak xam diine waaye dafa xam ku tuddoo diine yàq mu jàpp ni kon diine ci bopp mu yi bari na kuy weddi ak murid ak di ko critiquer fekk xamul sax gis ku tuddoo ak murid def jëf ji bu xamul mu ne ah li nga ak murid kon kon kon mu normal pour moom mooy yoon la yow Mbaye nga wax ne man ab murit laa tadoo ab murit murit dëkk yombul la yow nga wax ne man ab murit laa tadoo ab murit amaana nga gis waa bi dox ci murit ba am ay murit nag te kat du murit te it nga gis waa bi ci murit ba dundam ba xëy jee mu murit murit dëgg day dee te deewul ndax li dee metti metti dëgg la ak murit léegi boo ci bàyyi xel di xam lan mooy ak murit kon woote bi gën ci woote wane bi gën ci wane li nga yor li gën ci fu nit di jaar pour convaincre mbooloo pour ñu fekk si gis li nekk mooy mu mel melo mu meloo melokaan jikko yonent wax ju rafet baax ndax suñu borom li wax mooy ilayhi yasadul kalimu tayyib waaye nag jëf ju rafet gën ndax jëf jëf ju rafet moom lay suñu wax mooy wala amalu saalihu yarfa'uhu dafa wax ne wax ju rafet day yéeg jëm ci yàlla waaye jëf ju rafet nag yàlla moo koy fekk fa mu nekk yëkkati la boppam kon ndekete woote bi gën ci woote yi mooy nga mel ko ganel melokaan woo mën a xeeleen loo yeewoo li nekk moo tax ay jamono ñu nekk ci biir institut bi foofu ci bu biir Mauritanie ñu def benn cours boo xam ni cours bi li ko taxoon a jóg mooy nañ xool ci monde islamique bi yàq-yàq yi fi nekk ak luñ ci gis muy solution na kenn ku ne xool ma posé ko benn question ni def ca Sénégal dafa am benn mufti buy tontu bataaxal yi ci la ci ci ci rajo bi ñu bind ko leetar laaj ko ne ko ñun dañu nekk fii di ay prisonniers fii ci kaso bi waaye dañoo gis samedi ci ngoon ak dimanche ci suba bu ne suñu mbokki chrétiens yi dañ fi ñëw bu ñëwee dañuy dajale mbooloo mi waxtaan ak ñoom waadu leen. dalal leen muñ loo leen yéen lii am natt la bu yàq rek nañ ko muñ ba muñ a daal di sax alal dimbalee leen waajal li may laaj nag mooy dama mës a gis benn kilifa diine mbaa benn borom xam-xam bu bi benn baat waxuma la mu yëkkati ay ndimbal dina ko dimbale may ba xam lan mooy position islam ci kilifa yi xanaa daaw ko dund ma ma posé question boobu. benn malien jóg tàllal loxoom ni oustaz mën naa ko tontu mën ko tontu mun ma Bachir man ko am mu ne ma ñooñu normalement ginnaaw dañoo normal képp ba ñu mel ci islam nga wax ñoom dara dañoo fa dem di wax benn baal mbaa ngeen di leen jëmale ma loolu dinañ di encourage ci li a bàyyi kasa bi yàlla jàngalekat bi ma loolu doon na doon dëgg ci kaw bu fekkoon ne dañoo nekk ci eh, état islamique ñu àtte leen at islam bañ leen yar ci noonu kon mën nga ni leen ko bàyyi ndax islam moo di doyar waaye comme demewul noonu rek fokk nga xool ba ñu taxaw ba ñu taxaw benn naar jóge yëkkati kàddu ni mën a waa tool ñu ne ko tool mën a man a basir mën fii ci Mauritanie danañ dem ci kasa yi di seeti waaye nag kenn ku ne nag sa mbokki bopp ngay seeti di leen ñett ak dund di leen jëmale waaye ne ko ba léegi tontu walaay parce que kii position islam lay ban taxawaay la islam taxaw ci nangam waxul ay mbokk bañ demee ba jeexal mu ne wax dëgg yàlla loolu du suñ mbir du suñ mumin ayna ma wajadaha axasaha lu baax ak jullit ko moom daf koo réer fu mu ko gis fu wax ne am na ci ñenn ci wootekat benn borom xam bu jëfandikoo système boobu ñooñu di jëfandikoo loolu dañu loolu doon suñu gën am li ko bu jëfandikoo dem ci àll ba mu ñëwee dafa laaj ni ngir dugg ci kaso bi te jaar ci naan naan sàngara ba ñu dugg ak bu ñu mën a def rek ci biir biir sàngara soosu te fekk dañ leen di def ñi ñi ñi def du bokk ak ñi nga xam ñi nga xam dañoo sàcc alal yi jàmbur bokk ñi nga xam dañoo nax nit ba nangam nangam léegi nag moom ñi ñi ci tëj sa sàngara dugal leen daal la bëgg gis rek ba ñu yóbbu ko ca émission yooyu ba mu demee ba ci seen biir làkk ba la wax ak ñoom xam nga boo ñëwee ci ñun tëj kasa taxaw rek tàmbali na waar naa ne yonent bi neen yàlla nee na dañuy jàpp nga rek déedéet dafa set làkk ba ñu ko ñoom dafa ñëw waxtaan ak ñoom bu seen xel dal mu yëkkati alal dimbale leen ko ñu leen damaa ñëw rek tàggal te benn nga sax bu ñëwatee ñu dama leen a soxlaate ñu ubbi leen di ko bunt mu gisewaat ak ñoom bi ma waxtaan ak ñoom ba jeexal yëkkatiwaat alal dimbali leen leen dama ñëw rek pour dimbali leen pour sës comme loolu ñëpp seetloo bañ leen ne seen waa ji moo leen seet dañ ko yàqale bu baax mu waxtaan ak ñoom laaj leen waaw yéen sax lu leen andi fii sëñ bi mu daal da doon noonu sàngara def nangam ñu jàpp sàngara ba rek mu ngi koy kii ni ko may itam sàngara laa naan def nangam sàngara laa ba ñoo xam jeexal mën leen sàngara dafa baaxul bu ngeen gisee sax suñ diine ji araamal ko mooy yàqu-yàqu yi si nekk dafa bari wax ak ñoom ci ak ko ban diine mooy seen diine mën leen diine islam leen say leeral lan sa xam ci ay jikko ak yàqu-yàqu nekk sàngara ba gannaaw yàlla mbooloo dañ caa jaari tub nga xam ne kon jikko mooy woote di gën a musique ci ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko wootee ci ñu di ko wooteele diine islam mu mel nag yàqu-yàqu bi nga xam ne day sosu ci àddina saa buñ ko defaree mu yàquwaat ci benn mbir lay sosu la koy defaree lenn képp benn mbir yàqu-yàqu boo ko gis ca la sosoo ay yàqu-yàqu juddowaat la koy defar lenn la defar yëpp yi ci loolu loolu lay lay tegu muy lan boole yàlla ak dara bokkaale bokkaale mooy benn yàqu-yàqu bi nga xam ne moom képp moo yàqal ñeneen ñoo dikk weddi ko ñeneen ñu gëm nañ ko waaye di ko jaxase ñeneen nangam nangam boo defee yàqu-yàqu bu am foofu la bàyyi yonent si yàlla parce que yëpp lañ doon lijjanti mooy baat tawxid boobu muy wétal yàlla kañ mu tawxid kon benn yàqu-yàqu boobu mooy liy yàq adduna bépp benn genn defar gi it lu mas a defar moo ko defar muy fexe bu a laa defar fokk ñu di ko bàyyi bàyyi xel ni woote yonent yi yëpp lañ ci kawoot ngir defar ak yàqu-yàqu bañ ci fekkoon na ko saw mooy bii defar gi fii lañ ko tàmbalee muy wéetal woote ak wéetal kon yàqu-yàqu bu njëkk ba nañ ko defaree woon yàqu mu bu mujj bi noonu sax lañ ko mooy la yàq woon mooy bokkaale moo yàqoon adduna bi tawxiid moo ko defaroon moo yàqaat adduna bi moo koy defaraat moo tax la Abu Bakar waxoon ko xam loolu da nga ko xam Abu Bakar danoon xeet la moo a defar mooy kenn mën tawxiid bi moo tax tey ñaari aaya ñaari aaya alxuraan ci laay teg waxtaan bi incha mu ñaari tomb benn aaya bi dafay junj sëriñ Souhaïbou mi nga xamante ne moom la ñu tuddee bis bi dafa doon jëmm ju séddoo woon alxuraan yàlla yëpp sédde ko dëgg la doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ku ci ne da nga am ab cër ci alxuraan waaye nag na mu ko séddoo moom dañoo dem ba nangul ko ko mu doon ab cër alxuraan dafa wàcc ci biir war ko muy chahr ramadan lana dafee unzila fiihi Serigne Souhaïbou ci biir weeru koor la gane àdduna ba noppi nag séddoo alxuraan diir bi la fi nekk ba ni ñu ñàkk gise li doon ab lijjanteem lépp mooy nu alxuraan taxawe ci kaw suuf ci ñu mokkal ko jëfe ko jikkoo ko kon moo tax ma ne tey damay indi ñaari aay benn bi day junju alxuraan ak leer bi mu indi ci kaw aaya bi ci des ñam leeral ña dund ca leer boogee la mu leen jox ñaar yi tomb yooyu rek ci law allah aaya bu njëkk bi mooy li suñu borom wax ci alxuraan yaa ayyuhan naasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubiina suñu borom suñu borom dafa wax yéen nit andil naa leen la muy tekki foofu mooy luy tax du ngeen burhaan borom xam-xame tafsir yi dañuy wax ne yonente bi lañ tudd burhaanu min la mooy jëm bi wa anzalnaa ilayka nuuran mubiina ginnaaw bu ñu leen joxee lay woowu mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam te mooy kenn du ne xooma ko ma andil leen ak leer boo xam ne fu lëm fu dara la demee bu ngeen seen nitoo mu leeral leen benn aaya mooy boobu ñaar ñaareelu aaya bi xam ne nag mooy indi mooy indi saxaaba yi indi Serigne Touba indi Serigne Souhaïbou te mooy ñi dund ñi dund dund leen ko mooy fa amal ladina amanu billahi wa tasamu bihi fa sayudxiluhum fi rahmatin minhu wa fadl su borom dafa wax andil naa leen aw lay mu yonente bi sama son loolu am kenn du am layu ni xooma ko ma wàcceel leen it ak leer boo xam ni fu ngeen ko néete rek xam la wér ak la wér xam fa ngeen teg seen tàkk daal cee teg ne fa amoon la waa amoon la dina am bila ñi nga xam ne suñu gëm nañu yàlla wax tasamu bi te te mooy ci mooy ci ler boobu fa sajadu xilahum fii rahmatin minhu wa fadl yàlla leen tàbbal ci yërmandeem tàbbal leen ci biir ngëneel kon ñaari ay yooyu ci tali waxtaan yi benn bi leeru alxuraan lay leeral benn bi ñi jëfandikoo alxuraan ci la sëñ bi dugg ci biir daaray alquran ji nga xam ne Serigne Souhaïbou bi moom la féete woon tekkiwul dara lu weesu ab centre bu ñuy gëstoo jëmm yonent bi di ci gëstoo leer boobu ñi nga xamante ne moom la ay centre la daaray alquran ab centre la bu ñuy gëstoo le jëmm yonent bi mooy kan ak lim mu andil mooy lan daara génn ñaari kon. yonent bi moom la yàlla leer gi nga xam ni ci la niitoo ngir xam fi muy teg tànkam muy leer boo xam ni boo ci niitoo dëgg day leer naa ñu tegu na le caaxaanu nga xàmmee leen waaye nag alquran képp nag ci nga mën a niitu ngir xam ne dëgg ak caaxaan bu loolu lépp di jaxasoo alquran mooy leer gi nga xam ni mooy leeral doomu aadama dëgg mooy kan moo lay xamal yow yow doomu aadama yow yaay kan fixé la dayoo boo xam ni doo ko génn ni la fii la jox la dayoo boo xam ne danga xam ni fii fii la la teg ba doo yóbbu sa bopp fu ko weesu waaye doo arrière sa bopp yéen nag ba fa la daal teew ba ñu laa alxuraan moo lay leeral mooy leer bi nga xam ne day leeral nit ki ñaari matière première yi ku jëkk liggéey jëkk muy agsi ci aadama ak ay ndawee bàyyi ñaari matière première yi jëkk liggéey doomu aadama yàlla alxam moo la koy wa nafxatun min ruux ak wolu leer loolu moo lay leeral ne fii nga bàyyi ko suuf nga ak wolu ruux alxuraan moo leen leeral yàlla bi la bind ak nit ñi yaayoo nga jàmm loolu ci leeru alxuraan lañ koy mën a leerloo te jëkk leer bi yii di ñëw kat doomu aadama danaan tañaxu am na ñu tañaxu di tañaxu ba àgg ci teg seen bopp ba jox seen bopp seen boppam moomu ndax am na ci ku àggoon ci ne ana rabbukumul aala jaawale boppam ba jàpp ba jàpp doomu aadama dem na ba jaawale boppam jàpp ni mooy yàlla noonu la doomu aadama jaawale di arrière di wàccee boppam ba jàpp ni moo aw sax wuy wala wala fi ci sën bi képp ñoo yàlla day lekk naan bu jeexee jeex alxuraan dikk ni leen déedéet kenn ci kenn ci ñaar ñi du doomu aadama doomu aadama du yàlla waaye doomu aadama nag aw sax nekk ci ab sën di wala lekk naan képp ñoo ko bu jeexee jeex déedéet alxuraan mooy leeral leeral alxuraan mooy leeral ñaar mu mel ni kon teraanga ji suñu borom tëral doomu aadama muy def ko mu doon ab jaamu moom képp bu ko nangoo day daal di day daal di am personnalité waaye saa bu ko gàntalee bu gàntalee jaamu yàlla day daal doon jaamu bu mu njëkk def rek jaamu lu ne am na doon moo tax doomu am nañu jaamu ay lëj am ñu jaamu ay nag am te la ko war mooy ñàkk gi ñàkk nangu lii lii bokk na ko ci la personnalité waaye boo ko séggante nag ñàkk fayda ci lay ndax day laaj ñu jaamu ci lépp kon nit ci leeru alxuraan boobu ci lay leerlu ba xam yaqiina xam bu leer ne ndekete moom li mu doy loo tuuti la ndekete li mu jàpp ni lii doy na loolu lu tuuti la ndax doomu aadama bi ci ëpp day doy loo àdduna képp yam ci waaye fekk suba daf ko bind ngir ak alaxira lim moom dañ ko bindal jox ko lu rëy mu jënd tuuti daal di yem foofu alxuraan moo lay leeral la lii nga doyloo lu tuuti la ci la ci li tax ñu bind la doomu aadama bind ko ngir aalamul xaybi wa shahada moom mu yem ci aalamul shahada kese daal di jàpp lii muy jàkkaarloo rek mooy dara leneen lu mu dara waaye fekk ni dañ laa bindal lu rëy jël tuuti dañ laa xaajal lu rëy jël tuuti ci leerul alxuraan la nit di loo ba xam ni ci nit ki yam ci sonn ci jëmmi boppam sonn ci njabootu boppam képp ndekee lu tuuti la ci liñ soxla ci doomu aadama nit dafa a weesu nit du fekk benn cadre bu xat rek mu di ci yëngatu bu yem ci sa jëmmi bopp bu yem ci sa njabootu bopp dañuy bëgg nga jàng société bi dañuy bëgg adduna bi bëgg nañu ko. kaas sax doomu aadama na ci moom rek muy yam ci déedéet boo boo nee man man man ci xaraka bii laa nekk mbaa ci tarixa bii laa nekk yemale ko foofu ba tey tuutal nga lu yàlla lu yem diine la la yàlla jënd loolu te ci biir diine yaa ngi ci biir sa njaboot ci biir société baa ngi ci biir mbokki yi nga bokkal sax der doomu aadama doon ay rek ñu ngi ci biir diine jot diine la la yàlla li ñu ci loolu boo xasee xam lépp leer ci yow tey boobaam mooy gën a mooy gën a yaatu li nga xataloon sa bopp doomu aadama su borom def koo bind yëpp mu defar adduna ak waaye yëmut defar adduna kese kese kese defar boobu nag du du ko du ko yemale ci benn frontière maanaam day baat di baaraas yëpp ndax yàlla yaatu yaatu boo xam ne amul frontière moo tax nit ki saa bu dundee li su borom bëgg diine ji yàlla bëgg ci moom ak pas-pas bi yàlla bëgg ci moom bu ko xasee dund frontière du taw waxuma la frontière yi ñu frontière waaye du doon frontière diggante nit ak nit ci wàllu waaso du doon ak frontière diggante nit ak nit ci wàllu làkk wuñ bokk du doon frontière diggante nit ak nit ci wàllu euh, ba ci sax bu ngeen bokkul dina sax am na loolu suñu borom digal te ña nga xam ni sepp leen benn benn diine bu ko defee léegi yaatu boobu la suñu borom bëggoon ci dogal leerul alxuraan mooy leeral nit ki ba nit ba nit ki xamee ci ne ndeke ndeke man lépp li nga jàppee gudd fan xam nga nit ñi dañuy jàpp bu amee téeméer daal ñu gudd noo fan ndekete loolu loolu gudd fan amul fii ci àdduna jënd àdduna ci bopp moo gàtt moo gàtt lu gudd amul kon dañoo jaawale ba jàpp ne gudd am na waaye amul fii kenn gudd fi amul jënd àdduna ci boppam moo guddul ba dara def gudd àdduna te it li wér mooy da nga tase ba léegi la nga doon jox ca ka yaakaar wérul te suñu borom nee na ka annahum yawma yarawna maa yuu'aduuna lam yalbasu illaa ashiyatan aw duhaahaa nee na ka annahum yawma yarawna yawma yarawnahaa lam yalbasu illaa ashiyatan aw duhaahaa saa bu ñu demee ba gis li ma dul wax dañuy jàpp ni benn heure képp la ñu am ci loolu yéen nag mooy defar gàtt googu mooy defar suñu borom mi wax ni wa maa amru saa'ati illaa kalamhil basari aw huwa aqrab benn weer wax ni innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban li ngeen jàpp ni sori na ndeke lu jege la yàlla moom moom la mu gis mooy li wér li mu gis moom mooy li ngeen jàpp ni dafa sori lu jege jege jege kon alquran mooy leer bi nga xam ne nit dana ci neetu ba xam ne ndekete dee dee ndekete du ab terminus boo xam ne faa fa yem ndekete dee dara loo sax frontière bu ñuy bët jàll ci geneen kër almawtu baabun wala woykat nee na dee ab bunt la wa kullu naasi daaxiloo bunt la boo xam ne ñëpp fay jaar daal yaa layti shahriya ba'dal mawti ma daar ak a neexoon nag ma xam gannaaw bu ma dee fan laay fan laa jëm ci buntu nga jaar gan kër nga jëm am ko watoon ni ko ak daaru daaru naimin in anilta bima yarda ilahu wa in xaalata fa naa ne ko ñaari kër day fa nekk boo boo bëttee frontière ba dugg ci buntu ba jàll ñaari kër dafa nekk bu fekkee tegoon nga ci aw yoon àjjanaa ngi nii boo tegutoon ci aw yoon safaraa ngi nii keneen dikk ni ko addaaru keneen dikk huma mahallaan maa lil mar'i xayruhuma ñaari dërëm lañ yoo xam ne boo xasee ba dugg ci buntu bi moom nit ki fokk mu tànn ci benn benn li nafsika ay jël daal léegi yow yaay tànn sa bopp foo ci bëgg a jëm fu ci ne rek am na yoon wu ñu def ni la moo fa jëm nit a koy tànnal bopp nii jëkk moo fa jëm kajal sonn ko ni ko ni ko maa lil abidi siwal firdawsi in adalu wa in hafaw hafwatan fa rabbu gaffaaru ñi de bu ñu normale firdaws gépp leen yàlla jox ah bu ñu jàddee ak yoon rek yàlla mën na jégal njégul mooy leeral nit ki ni ndeke dee du ab yemukaay waaye ab jéggiwukaay la bu ñuy jéggi pour jàll sa kër innaka kaadihun da suñu borom wax ilaa rabbika kaadahan fa mulaaq suñu borom bi mu li ma doon wax léegi ni gudd fan nit ñi ko yaakaar waaye am léegi li am mooy sax sax moo gën a rëy gudd fan te loolu yàlla dafa doon xulóot sax boobu nag li ñu war a jënd fa ngay sax fan la ku fi jóge moom da ngay sax dàkk ndax fa amal la leen saqu fa fi naar lahum fiha zafirun wa shahihun xaalidina fiha abadan yàlla li mu wax bu gudd waa naam day gudd fan ba leen gàtt da nga sax abadan li ko dee du ab frontière du du ab yamukaay da ngay jéggi frontière dugg te boo jàll rek benn da ngay sax dàkk fa ngay sax rek benn mu doon xéewal mbaa mu doon am natt fa amal la leen saqu fa fi naari lahum fiha زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها xulul benn واما الذين سعدوا ففي الجنه ña tax it dañuy sax xaalidina fiha ma daamat samawat wal ard ñun dañuy wax gudd fan yàlla mi déedéet waxuma gudd fan amul sax moo am fa ngay sax nag benn mu doon lu ne mu neex mbaa mu naqar waaye sax am gudd fan amul amul yàlla sax lu lépp nag alquran moo la fay dara ci leeru alxuraan di nitoo ba ni ndeke lu fi am ci kaw ricc lu am rek yàlla ko programme inna kulla shay'in xalaqnaahu bi xadar ndeke lépp yàlla ko programme rek donc benn lenn luy am ci illéew loolu alxuraan mooy koy leer nga xam ne yàlla la moo ko programme waaye du amee ci awut lépp tegu ci ak xarañ xarañu lépp lu am yàlla ko nam lu mu nam li day am waaye lépp lu mu nam yéen nag daf ko natt natt ko ba ba ba ba gis ne lii doo nga mën a nekk yàlla lan la muy tëral natt na ko ba gis ne lii doo nga mën a nekk li mu tëral lépp noonu la te lépp lu yàlla natt noonu ba tëral ko ba lii képp maa nekk loola loola lu baax képp la maa nekk ak lu mu nur nur lu métti nag lu mu nur nur lu jóom ci yow lu baax la moom dogal yàlla waaye nag xam-xam lu maa doon mënul àgg si xam xikma suñu borom moo tax toujours nit di bëgg loo xam ne loral la maa ngay bañ loo xam ne moo gën ci yow xasaa an takrahu shay'an wa khayrun lakum yàlla nee na mën ngeen a bëgg dara waaye fekk mën ngeen a bañ dara waaye fekk moo gën ci yow wa xasaa ci bopp doomu aadama ak mu ñàkk xam moo tax bëgg ñu baaxul ci moom di bañ dëggan ci moom asaa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kasiran man ngeen a bañ dara waaye fekk lii mu bëri la ci yàlla dundal ci biir kon alxuraan li mu jàngal mooy nan jëf nan góorgóorlu waaye résultat nag nekkul ci suñu loxo ci loxo yàlla rek sabab boo mën a sabab jàppal ni sabab képp lay tekki waaye résultat bi ci loxo yàlla rek moo tax toujours nit dina jaar ci sabab mais gis bu réussite keneen jaar ci même sabab ba échec loolu mooy nit suñu borom mooy kocc moo kocc mooy dox su coobareem la lépp di dox ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko wax ni ko wootee rek moo la war waaye nag jub man mii ci sama loxo rek wala saharam la aamana man fi l ardi kulluhum jamii'an bu neexoon sa borom ñi ci kaw suuf ñëpp gëmaloo daf koy wooteloo bu naa de mën na jaaxle nii waaye nag na nga xam ni lay sotti maa koy sottal ba mu neexoon ko. wa insha allahu la jamaahum ala huda macha allah ma tax bu neexoon yàlla ñëpp mu jub mu teg leen ci ak jub ndax lu yomb dégg la ndax nit ñi yàlla da leen a bindee lekk ak naan ak nelaw te loolu fi ñu ko bay bu ko neexoon noonu la ñuy jógee ci teg ci yoon bu ko defoon ni mu lekk naan ak nelaw mel si noonu la ñuy a ñàkk a demee si jàkka ja noonu la ñuy mën a ñàkk a wooree boo jotee noonu lu mu maaloon rek boo ko suba bëggee loolu feere ko jaar mu yomb ci moom. dellu wax ni li man saa minkum an yastaqiim comme neex jubal waaye nag wa maa tasaaoona illa an yashaa Allah waaye lépp la mën a ñàkk ñëwul yàlla lépp nag dama def ñaari mbir la moo xam dañ ne yàlla dafa bàyyi programme bi ci sa loxo ba noppi nag tey war ni la bàyyi moom sa bopp comme neex jëmal waaye nag na nga xam ne mënuñu demee jëm mu utal baal jëmal loolu nag ku ko xam la mu lay jural mooy nga bàyyee sa bopp yàlla sëñ Tuba nekk xat dextu tadbiir yi bi tadbiirika lii dafa waxoon yàlla ni ko sama samay xalaat ak samay pexe lépp bàyyi naa ci sa say pexe dugal si biir pexe loolu pexe la man moo tax jullit niitu ci leer boobu yi xelam day mujj daal lépp lu yàlla def da ci làkk day xam yéen maanaam yàlla gën yaatu day xam it dayoo bi tax yàlla bind ko muy jaamu mu di ci góorgóorlu kem kàttan day xam it yàlla képp mooy wéruwaay bi nga xam ni ci la nit mën a wéeru mucc waaye jullit dëgg bu niitu ci leeru alxuraan du du gëlëm du gëlëm du gàtt du gaax am na ci xëy na suuf yi njëkk yi ñoo xam ne dañoo gabal bay am na ku ñuy wax Ilia bu Maadi day wax ne min ayna walakinni ataytu daal di ñëw dikk naa de fii ci kaw suuf xaw ma fu ma gis sama bopp gis naa ne maa ngi wala qad absartu quddaami tariqan fa mashaytu li gis ci sama kanam aw rek ma di dox waaye wax dëgg yàlla xaw ma fu وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت te dox bi may dox rek xam naa ne foofu damay dox ma neex rek ma doxee mu mel dara wa sa abqa sairan in situ hada daal ne kayfa jiitu kayfa absat tariq lasat nu ma fi ñëw rek nu ma gis yoon bi may jaar di doxal wax dëgg yàlla foofu nan la wax daal di wax ne ajadidun am qadimun ana fi hada wujud ndax man man ci monde bi dama fa yàgg lool wala dama fa yees ndax xalaat la boo xam ne fii dañu koy xalaat xalaat boo xam nit ndax bu jàgg la fi nekkoon wala bëgg dem la fi ñëw daal ne hal ana xurrun taliqun ndax man maa liberté doxal sama bopp wala dañ maa tënk di ma dox waaye xamul dama ci dara am asiran fi xulul hal ana qaaidu nafsi fii tariqi am ma ko ndax maa nga mat sama bopp wala ñoo nga mat daal ne atamanna annani adri walakin lastu adri bëggoon na maa xam waaye daal xam naa ne xaw wa tariqi maa tariqi aw tawilun am xasin yoon yu may dox daa gudd wala daa gàtt hal ana asadu am ahbitu fihi wa aqul ndax dama yéeg wala damay wàcc a ana saidu fi darbi ami darbi yasir ndax man maay dox ci yoon wala yoon bi mooy dox am kilaanaa waaqifun wa dahru yajri wala ñëpp ñoo taxaw adduna duñu yóbbu daal di nastu ak xaw ma xaw ma xaw waaye ma ne ki leeru am na ku Sëriñ Tuubaa nett li ci majmuwaa bi Serigne Abdoul Ahad moo li ci daal di kooka moo moo niitu ci leerul alxuraan kooka moom xam na ko mu xam na ko mu xam na lépp xam programme yëpp sëñ bi dafa nekk ni Malik ibnu Dinaar dafa wax ne damaa génn di aji jëm ba ci lal xaram gis ci yoon bi ab xale muy dox ko waxambaane yorul ab yóbbal ci dara gis moom mu gànnaayo dara mu di ko wax nee na ma nuyu ko mu delloo ma ab nuyoo ma ko ayyuha shaab min ayna yow xale a am na foo bawoo mu ne ma min indi maa ngi bawoo fa moom pour fa ilaa ay man waaw foo jëm mu ne ma maa ngi jëm si moom ay na sa du ma ne ko am sa yóbbal xaala fa alayhi nga ne mu ne mi ngeeg moom foo jógee ci moom foo jëm ci moom am sa yóbbal mi ngeeg moom nee na bii ngay jaar nii kenn du fi jaar te yoroo yoroo damaa yóbbaloo juróomi araf yoo xam ne boo jógee ci kër ga moom laa yóbbaloo mu ne ko lan mooy juróomi araf yi ngay wax mu ne ko xaw na ko taala kaa e, yee ayin sàll ne ko juróomi araf yi laa yóbbaloo ne ko amal kaafu fa huwa alkaafi amal haau fa huwa alhaadi amal yaau fa huwa almuwi wa amal aynu fa huwa alaalim wa amal saadu fa huwa saadu ne ko man jóg damaa yóbbaloo juróomi araf juróomi araf mooy alkaafi yàlla mi doy alhaadi diggante al mu'min di tàppoo nit di aalim di ko xam di saadix di ko dëgg ku ànd ak koo xam nag ku doy di la gindi di la tàppoo doon ko xam te dëgg kooku jël nga yor ab yóbbal jël nga nga yor ay ndox kii ay ndox dara nga ne wax yéem ma dugg ma loolu ngir lim tasawoo ak pas-pas bu dëgg woowu nga ne ma summi sama mbubb ngir bokk ko jox mu bañ ni ma adduna rafle moo fi gën a am mbubb ndax adduna li ci lew dañ koy isaabale léegi léegi dañ ne fii bëggal képp la dina ko bàyyi ko bi ñu demee ma ñëpp di wax labbayka allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk mu ni cal mu ne ko léegi lu tax doo wax labbayka mu ni dama tiit bokk ci ñooñee tax yonente bi wax ni su ma soo am na ñuy aji te bu ñu nee labbayka yàlla dinaan leen laa labbayka wala sa'bayka wala asma'u kalaamaka wala amlayka muy tiit bokk ci mbooloo ba tax ñu leen di wax ne am na ñoo xam ne bu ñu labal yaa ngi naan nanguwuma seen labaykat nanguwuma seen sandaykat du ma déglu seen wax du ma leen xool mu ne man damaa tiit ñun ci ñu ne laa bokk ma ne ñu ne ma wax sax labal nee na ma bàyyi ko ci meneen laa isa mi na muy wax ay bayit yoo xam ne inna al habiba alladi yurdihi safku dami dami xalaalu lahu fi lxilli walxaram sama sotti bi nga xam ne tuur sama deret képp ku neex day sama na ko ci xel li ak ci xaram bi wallahi law alimat ruuxi bima aliqat qaamat ala rasiha fadlan an ilxadam donc sama wu bu xamoon lan lam aju kon dootuma sax taxawee ci ay tànk waaye bopp lay dox yaa laa imi laa talum ni fi hawa yow bi ma yedd teg maa bañ yedd ci sopp bi ma ko sopp walaw aayanta minhu alladi aayanta lam lam tamit li ma ci xam de boo ko xamoon doo ma ci yàlla kooku ak bëgg yàlla moo ko si xolam dem yatuufu bil bayti qawmun law bi jaarihatin billahi xaafu la agnaahum an haram daal ni kaaba gi de am na ñu fi nekk di wër ñoo xam ne bu ñu demoon ba fële ci dëkk gee ab bant sax ñu di ko wër sax mu doy leen wala ñu ñëw ci xaram ndax seen xol yàlla képp ko fas daa ci teg ni ضحى الحبيب بنفسي يوم عيدهم والناس ضحوا بمثل الشاء والنعم daal ni sama soppe day sama bakkan laa ko jox mu tabaskee ci bisu ayib bi te nit ñi ñoom ay jurikat ak i gàtt lañu tabaskee daal di wax ni li naasi xajjun wala xajjun ila sakari nit ñi am nañ ak aj fu ñu aj jëm may itam am na fu ma aj jëm daal di tuntu xal ubaaxi wa uduxi muhjati wa dami nit ñi de ay tabaski di ko tabaski waaye man sama deret bopp laa joxe pour tabaski ko daal di daal di wax ne yàlla nit li day am nañu luñ tabaski am nañu luñ la jaamoo ci dinaay jox la man nag oma dara lu ma leen jox loolu la sama bakkan bopp jox naa la ko bi mu ko waxee dafa daal di sërxa genn sërxa daal di faatu Maalik na ma waajal ko denc ko guddi ko képp ma xool di xalaat ci mbirum xale boobu ma génn si gis ko ni ko nu yàlla dox ak yow mu ni faala bi kama faala bi shuhadaa Badrin wa zaadani jëflante naa man ni mu jëflante ak ña deewoon sax ca xare Badar te dolli ne ko dama li ma zaadaka lu tax mu dolli la nee na mu ni ma innahum qutilu bi suyufil kuffar wa ana qutiltu bi mahabbatil jabaan ñooñu dañ leen a rey ci si yëf leen rey man bii nag ci sopp yàlla dañ ma rey ak cofeel moo ko rey moo yàlla jox ko lu toll ni la ak Badar loolu lépp li ñu ciy dégg mooy ndekete dara weesu badar mooy li gënoon a kawe mooy xare bi nga xam ne bi mu xasee weesu ku mu rëccoon rëcc na waaye ndekete nit mën naa doxee diggante ak borom loo xam yàlla dina ko fay loo fay mën du badar ba doole ko loolu lañ wa zaada kon loolu mooy tomb bi ma jëloon ci alquran ak leer bi mu jàng doxal tomb ñaaral bi te mooy fa amal la amanu billahi wa tasamu bihi fasayid xeluhum fii rahmatin minhu wa fadl su dafa wax ñi gëm yàlla mooy ci leeram ko gii yàlla dana leen tabal ci yërmande ak ngëneel dana leen teg ci yoon bu jubóo it ñetti mbir ñetti mbir boo gëmee yàlla ànd ak di jëf lu baax su borom dana la fay ci yërmande fii ci àdduna ak alax ngëneelul fii ci àdduna ak alax teg la ci yoon woo xamante ne da ngay àgg ci moom te dal la doon kon loolu mooy tomb ñaareel bi nga xam ne seen soxay bi ni ñu cëral nit ñi ci biir loolu ngay dugg incha allah nga ni ngëm nit ki sax bu gëmee rek te ngëm gi dëgg ci caaxaan fokk moom jafandu ci yàlla ñoo ànd saa bu ngëmu nit ki dëggoo ci caaxaan moo ko jàpp ci yàlla ñooy ànd nit ki mënta gëm yàlla ba noppi léegi ne ba ba bañ a jàpp jafandu mënta nekk saa bu dëggoo rek te am na des na am na lu waaw te sama bii. fasayida xëlewum fii rahmatin min fat waaye misi san gëmee te jëfal jafandu ci leeru yàlla ko gii jafandu ci alxuraan mi ngi tekki mooy lam lay digal nga di ko def lam lay digal nga bàyyi saa boo gàggee gàggante ko ci moom ku ko def yàlla dana tàbbal ci biir yërmande yërmande ji wukut rek yërmande ëllëg waaye tey ak ëllëg lema dana tàbbal ci biir ngë ne def ngë nee tey ak ëllëg lema dana woo nit yoon wi nga xamante ni mooy yoon wi jëm si ci moom mu suulo te njub njub boobu mu wax mooy ahdihim ilayhi siraatal mustaqim mooy dayoo bi gën ci lu doomu aadama war a ndax yahood ji ak nasaraan yi doon nañu ko sàkk far mu ne ci leen yahood yi dañoo xam ak dëgg ba nga ñàkk ko jëfe nasaraan yi dañoo réer moom la suñu borom di wax ci suuratul Faatiha ne di ñaan di di ñaan loo jullit bi yàlla yàlla na nga teg ci yoonu jub ba nga xam ne bokk yoonu ña tëgg ña ña ak ña xëy na maxduub alayhim yi ñoom lañ meree ñoom ñooy maxduubun alayhim parce que ñoo xam ba naka laaj lañ ko jëlee an nasaara nag ñoom dañoo def ñu ñaar njub boobu di ko ñaan nga xam ne bés bu set gën jaar tuuti ci ab jullit dana ko ñaan yoon ak juróom-ñaar ndax bu fekkee julli nga julli juróom ci ne wax ko ci yoon dana mat fukki yoon ak juróom-ñaar ci bis bi loo ñaan yàlla teg ma ma ci yoon loolu képp noonu rek yàlla teg la ci yoonu jub waaye bu la bàyyi rek da ngay tañam bu boobaa da ngay léegi kon njub mooy li ci àdduna moo gën alal moo gën pouvoir te ñaari mbir yi képp leen ñoo soxla ci àdduna alal pouvoir yonente bi dafa wax ne nit bu jógee di julli bu ne alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom day wax ne hamidani abdi sama jaam bii bu ne arrahmani rahim mu ne asna alayya abdi sama jaam bii de tagg na boo ne maliki yawmi diin mu ne majjadani abdi sama jaam bii de teral na waaye boo ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suñu borom day wax haza bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'a daal ni lii nag maag sama jaam bi ñoo koy seetlu ci digg benn bi jaam de ko moom mooy iyyaka na'budu yàlla kese yàlla yàllaa ko moom wa iyyaka nasta'in jaam de ko suñu borom day wax lii nag maag sama jaam ñoo koy seetlu ci digg léegi lu ma ñaan maa ko waaye ma ne yàlla bu ñu bàyyiwoon rek ñuy ñaanal suñu bopp lan lay ñaan alal ak pouvoir lañ moom la alal ak pouvoir moom lañ ñaan waaye yàlla bàyyiwoonu moo ne yee ngi ci ñu ne ñaan leen ak ñëpp ihdina siraatal mustaqim yàlla na leen teg yoonu jub léegi yoon boobu muy ak njub mooy li gën ci li ñu war a sàkk ndax moo leen suñu doom sàkk lu ci alxuraan te bu ñu bàyyiwoon la ñuy sàkk ñun xam nañ muy alal ak pouvoir kon ñaari ci sànni yooyu muy yonent bi ak ak ak leer ko muy alxuraan mooy cosaan yi nit di fondé ay mbiram pour ndax yonent bi dafa indi alxuraan wax ko jëf ko ci ci siiraam firi ko dafa firi maanaam siira yonent bi dafa firi alxuraan ci jëf noonu lañ war a jëf rek loolu noonu tere ko ñaar yooyu muy jëm yonente bi ak doxinam ak alxuraan ak li mu daan leeral ci la saxaaba yi jaar bala ñu taxaw la ñu taxaw Sëriñ Tuubaa bu ñëwee jëmut ñaar yooyu jëmut alxuraan ak jëm yonente bi kan sil kitaab wal xadiis wal adab laa jam ko fiddatin wala jam ko sax dafa ne sama denc tiir mooy alxuraan ak xadiis ak adab waaye dajale ay xaalis mbaa dajale ay mbir loolu suma sama mbir Sëriñ Tuubaa bu ñëwee ñaar yi jàpp mooy ibaadatullaahi wa xidmatu rasul jaamu yàlla ak liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari cosaan yooyu ci la teg mbiram ci ñaar yooyu ci la yar boo leen mag ñi ko jëkkoon a jàppale njabootu bopp yi muy ay doomam ci la leen yar ba jëmmi seen soxna yi ñu cëralee cër bi tey doon ab école wala ab université ci université yi Sëriñ Tuubaa sax ñu dafa jàngee ay jikko yu bari yu bokk mu bokk ci ñi tax suñu borom di wax ci alquran min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi mu ne am na ci jullit ñoo xam ne ñoom lañ daalantoo ak yàlla dëggal nañ ko waaw ndax toujours nit ki dana dikk ni laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah waaye saa bu jógee jëf lu wedd ñaari baat yi mu wax moo tax sëriñ bi am ku ñëw ci moom sëriñ Tuubaa ni ko dama bëgg jébbalu mu ne ko ana loo ci jublu mu ne ko xanaa bëggoon nga jël ci yow rek li ma digal mooy def nga may tere may bàyyi sëriñ bu ne nañ fere yi nekk fii ñu ñëw ñu woo ñëpp bañ caaw mu ko waxaat li nga wax mu ne ko damaa bëggoon nga jël ci yow nga di ma digal may def nga di ma tere may bàyyi sëriñ bi ñëw damaa bëgg nga xam ne déggul la ay wax rek la boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañu ko kon fokk wax ji ak jëf ji ñooy takkatoo dara dootu maa tax sëriñ sax bokk jëm yi nga xam ni dañoo représenté woon diine ci bépp taxawaay bi ñu tax bu waxee leeru ngëm ci ay wax bu nee cell it respect ragal yàlla ak tawhid feeñ ci jëmm ji mu doon jëmm yoo xam ne ay jaamu yàlla ak i jëflanteem yépp ragal yàlla cee feeñ mu doon koo xam ne boo jaxasoog moom da nga ci yëg ñaari mbir da nga ci ak cofeel boo jaxasoog moom loo gën a jaxasoog di gën a soog waaye ci biir cofeel googu yi ci yëgaale respect ragal boo ko ragal mu mel ñaari melo yi jalaal ak jamaal ñu lay feeñ ci moom ba tax na boo jëflanteeg moom sopp ko waaye ragal ko loolu boole mu bokk ci ñi suñu borom wax mi naan leen rijal rijal yooyu ñu ko suñu borom waxee waxul ay góor ci wetu jigéen waaye rijal ay jàmbaar lay teg tekkul tekkul ay góor ay jàmbaar ay jàmbaar jàmbaar nag mooy kan. sëriñ bi nee na laysa sijaahu alladi yaxmi fawaabisahu yawma tiaani isa mal xarbu tashtaai bu ñu nee jàmbaar xëy yëpp dem si koo xam dafa mën a geer rek xare boobu bu mu xare gañe sëñ bi ni waxuma ko ki jàmbaare mooy man xadda tarfan aw sana qadaman anil maasi fa zaaka al faarisu al batal sëñ bi nag mën a jàmbaar ki ma jiwul mooy ki ki damm ak gisam ba du ci xollu arab tey ay tànkam ba du ci dox lu arab kooku mooy jàmbaar sëriñ bi bu ñu la jàmbaar kooku lañ jublu jàmbaar jooju jiit la yàlla jubloo bi far rajulun rajulun jàmbaar dëgg man yasbiru fii ba liggéey fi wala ñaar bu méttee nga bu neexee nga neex yi nit mën naa muñ lu métti lu neex ñoom du ko mën a muñ sëriñ bi ne jàmbaar dëgg mooy koo xam ne day muñ la neex la naqari lu neex bu ñëwee mën ko muñ ba tey jàmbaar bi li wax mooy ki nga xam ne day dëggu ci mbooleem ay yëngoom ak i dalam. dëggu ci ay waxam ak jëfam wax mën naa dëggu jëf ñu wedd ko jëf mën naa dëggu mën naa bañ a dëggu fi toll jëf wax ju dëggu la jëf ju wax ju dul dëgg ni mu amee noonu la jëf ju dul dëgg am nit lay jëf dara ñu bu ñu ko photo képp teg ni danga li dëgg la boo ko lu ñu toog ba ci biir lépp ay taxaw jëf jépp ay sal baraw di su goon wax mooy koo xam day set ak xol di jokkoo ak yàlla ci wàllu ko waaye di rafetal it digganteem ak doomu aadama yi xolam it day mucc ci bépp tawat jàngoro bépp jàngoro jàngoro yi bañante jàngoro yi xiiroo jàngoro yi yi njëstal jàngoro yi naafeq jàngoro yi bokkaale ki su doon wax xolam day mucc ci yooyu jàngoro taw bi mucc ndax jullit jullit ba noppi di nekk di di am ñaari kanam yàlla néew na jullit du am ñaari kanam loolu ñu ne fi mel nii boo nee sa mbéy mi rek jullit mel jullit benn melokaan la am jullit benn diplôme la am muy ak dëggam dëggu dëggu waaye jullit du am ñaari kanam wa moom moom moom li mu seetlu bopp moom seen tubaab mooy wa baatini wa baatini tawaafaqa sama biir ak sama biir dañoo dëppoo léegi des ci kaw rek mën a ci biir Cheikh Sidiye Baba dëpp la xam dëgg moom jahran wa tibtum sariratan wa kullu inaain bi ladayhi yasar baax nga ci biir baax nga ci kaw ñu ne ko foofu teg mu ne ndab lu maa doon la ci biir def lu ne set la sa mooy seet si bitim ndab mu ne foofu laa teg ma wax sëñ Jean bu école la xol boobu may wax xol bu rafet école la ci te loolu nag moom la nit war a dox jëm muy sàkk ko xol bu rafet ak noo ko mën a sàkkoo ngir ëllëg yàlla waxul nu julli yu bare fay jëriñ ba koor yu bare fay jëriñ ba lenn lu bare fay jëriñ waaye dafa wax ne laa yanfau maalun wala banuun alal mbaa ay doom amul njariñ illa man ata allaha bi qalbin salim nga def da ngaa xol bu set wecc borom xam ni alal doonte doon ko infaq di ko dépensé ci yoonu yàlla ay doom doonte des nañu sa ginnaaw di la ñaanal lu tax mu amal njariñ tam da ngaa andi xol bu set xol ak bokkaale xol bu set ci ak naafeq xol mu set ci ñistal xol bu set ci bañante xol bu set ci ci bañ ak dëgg xol boobu yi moom la yàlla xool ëllëg xol boo xam ni lépp daf ko jox yàlla di tuub amul cofeet ci yàlla wakkeelu ci moom ragal ci moom xol boo xam ni dafay nooy nepp diggante sama borom amul ragal amul toroxlu amul sellal bëgg sax way way jikko yi ñu wax yëpp moo ko xamal si sooy way kenn gën ko way ci àdduna way programme yi daan doxal dara mënu ko sax ndax li gën a rëcc ci moom moo ñëw ko sëñ Blaat ñëw na fi mbaa sëñ Buxar ñëw na loolu day àggali jiitu alxames bu doon tàng ba noppi doog a dem si àll si te loolu moo moo moo gënoon rëcc ci moom loolu loolu nag ak waye la daan jàng moo bokk ñi nga xam dañoo dégg diine xam dogalu yàlla nangu ko loolu yàqal ci dara teelu la woon yàqal ci wutoon dara loolu gis mooy muy muy muy saboté dara maanaam dara dañu leen dara nax la ko war mooy xam xikma suñu borom xam ne suñu borom lépp lu mu def ci xikma la ko teg ci xel te ak xelañam lépp ak yow lay doon moo tax jamono yi ñàkk ak jamono yi woomal jamono yi xam ak jamono yi ëpp lépp daf ko yemale ndax yonente bi ne woon na inna min annaasi man laa yuslihuhu illa al ilmu walaw ajhaltuhu la afsadahu dalika am na ci nit ñi ñoo xam ne la leen di defar mooy xam-xam bu ñu réeroon dañuy yàqu wa inna min annaasi man laa yuslihuhu illa al ghina walaw aghnaytuhu walaw afqartuhu la afsadahu dalika am na ci nit ñi ñoo xam ne am koom képp mënu maa defar bu ñu ñàkkoon dañuy yàqu wa inna mina naasi man laa yuslihu illa al-faqr am na ci nit ñoo xam ne ak ñàkk moo leen a walaw aghnaytuhu la afsadahu dalika nga xam xikma bu gën solo muy nit ki am xam-xam mën naa am suñu borom daa xool ba gis ñu xam képp ci la mën a jaar ba defal mu xamal nit ki réer jàppal ne xikma suñu borom mën naa am suñu borom daa xool ba gis ne ci réer gii la mën a jaar pour defal mu réer ko nit ki am alal suñu borom ci xikmaam xool na ba gis am bi képp ma ko mën a mu jaarale ko nit ki ko ñàkk mu mën naa su borom daa xool ma gis ñàkk képp ci la maa def lool mu ñàkk lool moo tax nag foofu la daan xool ba tax dara du ko jaaxal ku xool foofu dara dund dund bu tey yoon jikko yu rafet te jikko yi alquran lañ bëgg nit ki jikko woo ko mas naa ko fee wax jëm ay jamono ni leen yonente bi de ba ñu laajee soxna Aïcha lan mooy ay jikko dafa wax ni kaanu xuluqul quran waaye man de sëriñ sang boobu ci li ma dund ak moom mën naa ne kaana xuluful Qur'an waaye jikko mu nekkoon alxuraan ndax ma dund laa mu nekkoon diggante jalaal ak jamaal jalaal bu ñu ko waxee dana ëmp ñu bari jamaal moom waaye jalaal mooy ma dikkee tàngooru boo deful nangam a nga jëm boo deful nangam nii boo deful nii nii nga xam lépp ay tëkkulee loolu mooy jalaal jamaal bi ñu ko waxee mooy jig yi ñu lay diglu ne boo defee nangam da nga am àjjana boo nangam da may nangam boo def nangam da léegi sëñ Saal daal dox ngir ñaari si bëri mu mel ni li sëñ Bachir natt li si mel baax ak ni ne sëñ Touba ni mu doon dundee jalal ak jamaan yii saa da nga ko gis mel ni ku neex yii saa bi ubbi quoi te da mel dafa dëkkewoon nag dafa dëkkewoon dàkk sax di def ni di ngëb ak ubbi mu mel ni diggante jalal ak jamaan ci daan dox moo tax tubaab boobu ñu wax Antoine ñu mujj ko bëre moom tubaab bi wax ne benn bés dama ko invité bi muy dafa ñëw rek simple dafa ñëw rek ñu accident rek ñëw maa ngi ak kenn doonul doonul sax kam doon mel mooy kilifa dëkk dafa ñëw nii bi ma ñëwee ma ne ko toogal mu mu wër ma mu war a toog jublu mel ne daan ma war a ñoo bisimilah nee na ma ne waaye ni nga jublu nii li may wax ak yow doo ko dégg sëñ bi ne ko moo ne ma ngay tam ne fii ma jublu mënuma fi ñàkk daan def fu ma sant toog day jublu tubaab bi ne dama am lu obligé wëlbati bureau bi jël sama chaise dem jël taabal teg ko ci kanam jël sama fatal ci kanam jàkkaarloo waaye dafa wax dama ne wax ak moom ma gis lu mel ni mer feeñ ci jëmm te mer bi xam naa ne jógewu ci li ñuy wax ginnaaw bu day xas daf koo xam waaye sëbëb yi jëlaat ba jëlaat man loolu seen changement daf daal daf koo dund ndax ku nga xam ne la gënoon a mën a jàpp ngaram moom sëñ Saaliw mooy waxtu julli jot mu gis la ngay nekk ci lenn lu dem julli si loolu la mu doon déglu ni mu wax ci téere bi ni mu ci téere bi ni julli war na lépp mu kàlla ku ko weddi ak yéefar ku ko bàyyi te tay ko te tanewu ko saay saay la mu bon te bëgg sere ci dara te bëgg benn sawar a jëm man la man daan ñëwante ak njaboot bi doon romb ne nag dafa demal julli ji demal julli ji ginnaaw mu defal ne ko julli ji nga mu ne ko jël mu tànn jël ne ko boo jëlul yaa ngi ci kaw sax waaye noonu mu wax aw melokaan la naka noonu sëriñ Soham bind bataaxe daa doge yi koy tàddeew weeru koor dafay tàmbali mu bind leen leetal ni rek damaa bëgg ngeen boole jaamu yàlla ak liggéey bi ku ci mën a boole jaamu yàlla gi liggéey mooy li ma gën a ko ko ci def nag nekkal nga ma fi nekkal yonent bi nekkal bi sëñ Touba nekkal fi yàlla ku ci mën sa boole jaamu yàlla gi ak liggéey bi bàyyi na fi sama liggéey te dem jaamu ji si borom loolu seen seen daan bi ñu ko tax ci deful nag ba noppi jógee moo na nga xam ne nekkaloo ko fi nekkaloo fi yàlla nekkaloo fi yonent bi nekkaloo fi sëñ Touba sa bopp nga fi nekk ak seetaan te dem ci sa moo la gën a noppal waaw sa jubluwoo dajale mbooloo képp wax loolu donc foofu da ngay leen bàyyi lu def waaye lii da lii daan mu bind bataaxal jox ko nit ñu ko demal nga jàngal ko jigéen ñi layoon naa ñëpp yaay leen njëkk a bis kooku ñëw si jigéen ñi jàng bataaxal sin sall bind si bataaxal ne leen damaa bëgg ngeen xam ni jigéen ñi ci mbokk mënu la weesu maa jur jiw wala jiwoo ma jur wala jiwoo may denc te yonent yi gën ci yonent bi am na si boo xam ne doomam dem na am na si koo xam ne bàyyam dem na am na ci koo xam ne soxnaam dama sawar te daf la di weesu ñàkk a topp ndigal ak ñàkk bàyyi bu ngeen gisee may su ma waxee ngeen sawara moomu moomu ko sawara moomu ma ma ko mooman dama koy fay kenn jënd ci du ko waaye yàlla ma ko la mu wax ne ku ko def mu tàbbal la fi loolu laa xam di ko ko def loolu ku ci ku def sa bopp ku def ci yaag caag àjjana su ma ko moom ji ñëpp laa fi tàbbal waaye nag yàlla ba ko moom lan moo ko def mu tàmbale ñu loolu laa di ko jéem dina ko def loolu ku def sa bopp ku def yaay nii mu waxee ci bi daan waxee ak njabootu bopp ci dëkk waaw ba ci bi mu taalif mooy la ay nii daf ko taalif andil ko ci daara ci boobu ñu ci daara alxuraan ci wetu kër di waaye bu ñu jàngee man ñaari si alxuraan dañuy taxaw arrêté alxuraan bi ñu dina ko ci àlluwa ñu koy mokkal boobu lañ mokkal laa ilaha illallah yàlla moom rek moo di buur ngoonam bi diggalee ko kenn xam-xamu boppam sañ mu boppam kàttanu boppam cere jëfe lépp loolu si noonu la demee ba ci biir tegg yi ñuy doxee ci biir jàkk boobu lañ mokkaloon mënul ku nekk ci du xoolee xoole bu bari day lam san ku nekk ci jàkk du tàllal ay tànkam du fokk ay baaraamam du lenn ko du wokkutu du teeñu du lay aw du ko seet du fo du ree du rëddantu du tombantu du capp-cappali bat day tudd yàlla ndànk wala mu yàlla ne cell su rubal lu gën yéen ñu ko mokalal ñu ko mu ne loolu jàngale na ci ni ndekete suñu làkk bopp bii bu ñu ko doon jël xam-xam yi ñu soxla yëpp ñu dem jàng di ko jàngal gone gi ci loolu lu ko ëpp solo la ndax dañ koy màggaale xam ko mu jël waaw loolu lépp nag am jàngale la moo xam dañu ko war a jàngale ci école bi mel ni jëmmu jooju léegi nag loolu mooy sifatul jalal bi ma doon wax ma ne jamaat bi nag léegi la ca yéeme mooy ku ko xam ku xam Serigne Souhaïbou yërmaande nga xam ci moom ku ko xam ak ñeewante nga xam ci moom ku ko xam ak leer nga xam ci moom nga xam ne bi bu jëlaat ñëwee bu jëmaat li nga xam ci moom moo yërmaande ak leer ak bari kers si di xool ni soo du ko lu xaraxar ba dawul siggi xool nit war ma jëm daan war maa nit gone ak mag li ci yemale ak gan gi ak dëkk rawatina gan gan moom mën sa xam mu ko tàmbali sax lu ko mën a xajul nga koy mën ñu jàpp yërmande yi dama dama doon wax li wolof yi wax naan eh, jëm yërmande picc yi sax xam nañ ma ne ko wax ku dul suñu changement bi mënees na ko nattale waaye suñu changement boo ko ci waxee xaqiqa la du ay du ay waxi kese kese nii ndax moom ku ko xam ku ne xamoon nga ci biir kër ga ca booru keesu jàkka ji ca penku ñu def fa am mbalka di root ko ca sotti di tibb kàpp picc yi picc mu ne xeetu picc mu ne da nga ko fa gis ci jamono yooyu muy naan di lekk yéen maa ngi jooju daf koo feeñal ba ci picc bu doon dox nii ci yoonu jëm ci jàkka gis am picc muy dox nii ci yoonu du bëgg mu naaw de day teg gi moo war maal ba war maal picc war maal ginaar tey loolu mooy maanu te yéen fi son son jàngale woon ndax yant bi jóg na di fat ko ji màkk fukki junni nit topp ko fukki junni nit mu jékki-jékki am picc ñëw ceeb ko yant bi taxaw na man fajaa haadihi bi waladiha kan moo moo moo moo ko moo ko tiilloo ci doomam am ku génn ni ko ana yaa rasulullah axastu farxayha mu ne maa jël ñaari cuujam maa jël ay cuujam yonte ne ko a'iduhumaa ilayha dem la cuuj jàmm ni ar moom fukki junni nit ak nangam di fatu ci màkka am dicc moo taxaloo am lépp ñu tax maa ngi ci ko mu indi sa suñu mu doon koo xam ni bu ñuy wax matale kóllëre waaw li suñu fan dolli li ma ci dolli mooy moom ñii ba mu fay nattal kër moom suñu ci li ma doon wax rek lay lay dëggal léegi. ni bi mu ñëwee di ko nattal kër gi dafa fekk ab xorondom mu ne xorondom bi kon nañ fekk dem ba leen bàyyi xorondom yi waruma leen waaw loolu fi ñu njur na sam ci wax li li may wax nii lu ci bari man dama ko dundal sama bopp xamal ko sama bopp di ko wax waaye junni junni ma tamit mu mel ni li ñuy wax matale ko léegi wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula te yàlla wax sëñ Sane daal wax man de kooku laa gën a ragal ay mbiram ci ki ñooy jëbali ci ndax yàlla wax na ci alxuraan ni moom ñii laaj ay njab ko ba am na benn benn docteur boo xam ni bokkutoon sax ci tarixa mbir waaye dañu ko man kat féeti naa ci barab ba na waaye nag ëllëg bi su ma xam sama roo bu tàggoo sama yaram de yaa ma day sama bopp sëñ Sane boo jël jëmm jooju dugal ko ci bànnam sëriñ bi continué ko rek ba àgg ci bu tabaski jotee bu yónnee xarum tabaski day jox soxna si fi nekk soxnaam sos da koy jox am xar moom moom fi jóge bu yàgg mu joxale ko am xar ñaari xar lay joxale ngir mot li ko dal imaam bi dama kenn ci dongee wax ni ma sëñ bi waxoon naa mu wér moom mu ni ma dee ma ko jàngale ak kamil at mu jot sëñ bi nena sëñ say waxoon na ni ko def ñaan mun fonk pëlëre ko am na koo xam ne kii kenn ci kilifa yi sëñ bi boobu bu ñëw mu ne ko damaa amoon sa baay pëlëre te te ama uma ay tànk yi ma mën a jógee ma woon nga dimbalee ma di fi ñëw ngir mën a mot li ko dale ko ci yow ndimbal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni li liñ ci moom mooy buy sarax na nëbbu sarax ba ba li ndijoor bi joxe càmm mi du ko xam nëbb ba kenn du ko xam seen changement bi danaan jekk ba guddi mu jël ab oto def ci ceeb def ci dugub tànn ay ay nit kum jàpp ne ab nettalikat nga sax dina ci boole ci ñu ko yëpp dañ leen loolu ma ko diw ak diw ak diw ak diw loolu noonu la nëbboon noonu la gën a woon mbóot te fekk dañoo xam ne sellal dëgg dëgg dëgg mooy lan mooy ni ngay nëbbee yu yi nga di ko nëbbee yu rafet yi loolu mooy dëgg dëgg sellal da ak loolu ba lii ñu si nekk li lañ si jublu mooy mu doon référence nit ñi jël ko roy jëf waaye noonu la ko amee bu ak taalibe kenn xamul ak topp si ne blaat toog naa ci ab jotaayam am ku téléphoné mu ni jiit demal seet kër ki ba xam lu muy sab noonu demal seet kër gi ba xam lu muy sab noonu mu dem wuyu dikk ni ko jiw de waroon gis nañ ko fii lu koy sëñ bi kilifa bi mooy kilifa bi yoroon na ko ci hmm. ba ñëwee di woote fi moom ngir na woote kër doon ko fegu ci téye boppam ci deru doomu def te li gën a jafe-jafe lañ toll nii mooy gerte yi ak alal ñun senegal duñu lay gerte nit mm. waaye derb jàmbur nag derb benn bu ñoom am alal li ñëwul seen saxaay bu doon ko ñoo derb jàmbur ndax benn bis jotaay boobu ñu toog ñuy xool weer bu seetlu bu njëkk bi li koy seetlu am ko ku ñaw mu ne ko jëw lu rajo wax mu ne ko ah caaxaankat yi ñu ngi wax ne loolu tamit nu ko wax ca saase ca saase la la sat waxee na ma moom ni ko boo Jibril wax caaxaankat yi a mu mu nga xam ne ab jëw du bàyyi fenn muy jàll waaye Jibril wax caaxaankat yi mën nga ko noonu toog naa ba say ci jotaayam am ku ñëw di ko laaj mais ni daf ko bëgg cokk jotaayam jëw naa ko moom ndax moo ko alxuraan xamul nga sëñ jagat dañu ko moom rek njax jaxasoo wuñ waaw loolu dootul jaxasoo bu dee ak muñ jikko yi yëpp nii moom nga alquran lu jàngale lu ci ne li ma ciy mën a seere ci moom tuuti la ci lu bare ba day mel ni ak géej goo fa askoga lem sànq bu dee li ma xam ci moom ci ak muñ benn talibeem ci talibe yi mag yi nekk na ma ne man de bu may nekk barab sàngam di jàng alquran sama sëriñ daf ma daan yónni ci sëñ bi ay hadiya léeg-léeg waaye jamono boobu de su ma ñëwee ci sëñ bi mën na maa tey juróomi fan yoo xam man mi lay yónni kenn du ma nee na moom rek ma leen si kenn moom lañ tey di ko yónni ay yónni sëñ Abdou Karim ba tey su ma woo ñu nekk li ma ne ma sëñ bi daal nekk sëñ bi ay jamono yoo xam ne sëñ bi mën naa fay ba jant so indaari dugub ju ñu taal ci kër gi dafa am waaye du ko wax kenn du ko sax ji benn mën naa jekki nag ba jot sax nit andi fi dara ci dugub mu joxal ko ni nañ ko nañ ko def cere kon balaa balaa nañ balaa kii yées waaye buñ koy defar bala mun a fajal lay jam buñ ko jëfandikoo di xaaral yàlla lépp dund na ko te loolu mu dëppoo li nga soxna Aïcha nag bi radiyallahu anha ni ñun de weer daanaka la dellu calo dellu calo muy ñetti calo tey di ñaari cin bi ci kër yi luñ mos doomu tàngoor ma la baa tuuti as coow ci kër yi am tamit ci biir jànkuwante boobu ndeysaan benn taalibe bu mag ñu ko wax am yow de am nga ñuy wax diw sàngam bokk la newoon bi sëñ bi xanaa xamul loolu xalab la xalab te xalab bokkul ci ñun xalab mooy dara ñu rafet nga ba muy tàggat ci ñun dafa loolu xalab la te xalab bokkul ci ñun yow lu ne xanaa loolu dëppoo naa ko li yonent li ñenn la ci saxaaba yi yonent da leen dénkoon ni leen bu leen laaj kenn dara am na ñoo xam ne ñàkk laaj kenn dara googu daan leen jóoti ñu war ci kaw dara seen yar wadd jox ma yàlla bi képp di ko waxee dañuy yësal gi leen dem jël yàlla gerte ni yoon si doon teral laaj leen dara sëñ sax bu digganteem ak ki mbokkam yi mu bokk sëñ Tuba benn bëkk néeg ci bëkk néeg sëñ sax bi mag moom moo sa wax ni ma mas na maa ak sëriñ bi tiib tiib ñu seet sëriñ Bachir nee na bañ ko waxee sëriñ Bachir ne ko sëriñ sax bi ma nuyoo dafa wax kooku ne ko ndax jaww soxna yi wala Sadio mu ne ko sëñ soxna bi la xam koo xamoon ak toog moom ñàkk génn mu ne ko sëñ soxna bi la mu ñëw moom jàmmante waxtaan ko ab diir ni ko damaa ñëwoon rek nga siyaare si kon nga ñaanal ñu ñu dellu sëñ Bachir lii nga nekk nii moom la doon sëñ Touba digal bi li mu waxoon mooy li ma bëgg mooy ku ma toogal Touba li ma jàngalee alxuraan su ngeen ko defee lépp lu ngeen bëgg dana leen ko fekk su ngeen ko def nag da ngeen mujj mel ni naar yi am yéen a ko wuti daal di ko te loolee da yow mi képp yaa ci nekk kon ku dëkk ci dëkk bi wala si yàlla si kuy génn wala tak kon sëriñ machine moo ko sëriñ sëriñ bi nag ko si yàlla mu ne ko xam nga nit kuy te ba moo ko nu muy defar mu na dàkk digg digg tuq sa rek li ci dëbb lépp dana fépp yëpp ñoo bokk si bopp nekk te li nga nekk ne mooy digg tuq si mooy toog avant toog yi di jàng wax di ko jàngale loolu bi la la fekk sëriñ Abdou Ahad kenn du ko xam moo leen yar mu ba mu doon dina xam ne sëriñ Abdou Khadre relation bi ñu amoon moom si mu daan def alxames mu ñëw di ko ganesi ñu di ko ñu di ko fekk ñu di ko fàttaliku saa bu ganesi sëñ bi li ci xel baax mooy sëñ bi jënd kër gi la koy jëbbante mel te yi tabaxu bopp la koy jox dem moom sax ak maaw ci ginnaaw kees yi mu bi xaalis moo koy nekk heure bi a solo heure bi mu war a dara du solo ñëpp bu ni nee moom la ñuy seetlu mu ëpp bunt yi daal di wóolu ci mbooleem ñi nga xamante ne ñooy mag ñi encadré ci boor yooyu ñu ñëw si ngeen ba waxtu tàggoo jot ñu jotaayoo tàggoo ñoom ñaar dinaa bi dina nekk ni ma ngan googu ñu ngi ko tàmbali woon ci ba ñuy doon ay tuut tànk si gerte suñu sëñ Abdou daal ko gane ci sëñ Abdou si ba mu jóg sëñ Abdou Khadre ni ko maa la ëpp jot da ngay jàngale kon toogal rek may ñëw ñaw gi muy dàkk bisu alxames ngir gone yi mën yi gis bokk diggante ma sëñ Saliou fàttaliku naa bu yàgg mu ne ma dama woo sëfa ba ma woo ba ma ñëwee sëñ Fallou ñu laaj ko boobu forme bi moo fi nekk forme bi léegi sëñ Fallu moom ñu ñu fe fekk fi fi sëñ bi daan toog dañuy pousse sees bi kii jàll jàll ci ginnaaw bi ñu ko pousse sëñ Fallu jàll ci ginnaaw man ma taxaw damaa jàpp mu taxaw di ma xaar may tam ma taxaw ma tey ngaa dugg nan la ma ko waxee ma daal dugg kër sëñ Fallu lañ def boobu bi ñu jëlee sëñ Fallu kees bu njëkk bi mu xay bi kees ñaareel bi ab yéen moo fi nekkoon kees bi ci toppaat bi ak yéen moo fi nekk bañ leen fekk foofu sëñ Fallu bañ ñëwee ñoom ñaar ñoo ànd bi ci biir di wax di fa nekk di waxtaan ba man dama mujj nelaw bi si liggéey dañu maa yee seen relation boo xam ne benn benn la ba ci man li ma booleeg seen Saliou ci lañu ma nekk dañoo wax ne seen Saliou moo wax seen Saliou ni ko sa dongo yi damaa bëggoon nga jox ma ci lu ma téeméer ma liggéey yàlla la ci seen Tuubaa seen Saliou bu jël dongo yi waxuma sax jël téeméer waaye yamale ko ci téeméer daal jël jël lu ko am rek jox na ko ndax doy na ko ko doy man dama yóbbu ci seen Saliou bi ma yàlla dafa doon dafa soxla woon jàngalekat yi ko jàppale ci gone yooyu daal di laaj ndax xamu leen fa ku mokkal alxuraan ñu ne ko Basiiru seen kan leen xam si ko mokkal alxuraan tey dafa nekkoon mursid di fa jàngee dafay ñëw rek war a delluwaat moom sëñ Saliou mu jógal bopp ñuy sëñ Saliou wax ko sëñ bi yónni si man Mame Balla Bass bu ñëw di ma bi nee na sëñ Saliou dafay ñëwoon soxla la la mu lay doy it mooy dafa bëgg nga jàppale ko ci njàngale bi alxuraan mu bëggoon loolee mu ne nga dem fa jàppale ko ci te góor-góorlu ci ndax yow àdduna alaaxira ci moo ci loxo ma ne ko ba nekk li bu yokkul moom si saa ci mujj ne ko sëñ ba mu may bële yow def na nga ci góor-góorlu ndax yow de sax naa la. léegi fañ tegante ak ni nga maalante kenn ku ne di xool si waat si moom ne kàddu ci moom loolu day salaay yóbbu koy sama képp sa kon noonu la diggante moom njaboot suñu tubaab dama diggante ma sëñ Mawla sëñ Mawla xam naa ko ñu ay yoon ñëw nii di waaj a tukki ñëw bi def ay bernde ñu toog wéet waxtaan léegi ba ngoon jot na relation boobu relation bi yemale ko woon rek ci diggante moom njaboot ñooñu bokk sëñ tubaab waaye ba ci mag tali bi ba ci ñu mbokkalul sax xaneexa bu ñu dund ndax ñun ñu ngi fàttaliku sëñ Haaji Touré dafa daan ñëw dafa yàgg si bu ñëwee sëñ Souhaïbou day wax nañ dox jàkka ji muy jiite ba ngoon jot da koy terale ndax gënu diine doo ko terale lu dul moom mooy jiite ba ngoon jot ba ba muy tàggoo jot loolu ñu ngi koy fàttaliku yow mu doon jëm joo xam ne kon dafa représenté diine ci wax ak ci jëf te bokk na ci nag ak gëm yàlla wormaal ñooñu ak jox leen seen gëdd ak fonk leen te mu doon ñoom ñooñu la suñu borom warlul ci alquran ni dana leen defal ak cofeel ndax inna lazina amanu wa amilu salihaati sayaj'alu lahum rahmaanu wuddan suñu borom dafa warlul ci alquran ni képp ku baax ku gëm di def lu baax yàlla dana defal ak cofeel cofeel gan dana defal ak cofeel si léegi teg moom defal la ak cofeel si léegi teg nii kon sopp gi ñu doon sopp ni du ay caaxaan xaqiiqa la bu jóge ci yàlla te ñeneen di sopp yi mooy ñu si yàlla yonent bi dafa waxoon ne saa bu yàlla bëggee ab jaam day day fa xoli ñu bëgg ko yonent bi ne saa bu yàlla bëggee ab jaam day woo Jibril ba mu ñëw mu ne ko jiw mii de bëgg naa ko na nga ko bëgg Jibril ne ko bëgg naa ko daal di koy bëgg daal di wax waa asamaan sépp seen borom de bëgg na jiw mii na ngeen ko bëgg ñoom ñëpp ñu sopp ko ginnaaw bu ñu ko bëggee ba noppi nag dañuy fab cofeel boobu wàcc seen ko ci kaw suuf ku mu dajee des mu sopp cofeel yi ca kaw la bàyyi tey lii mandargam ni yàlla bëgg na jàmm bi mooy jàmm bi na xool ci xolam gis ak bëgg yàlla ci xol boo ko gis rek na xam ne moom itam yàlla bëgg na ko ndax yàlla li ma ko ci alxuraan mooy yuhibbuhum wa yuhibbunahu moo leen jëkk bëgg ñu doon ko bëgg saa boo bëgg yàlla ngeen yàlla ñu leen yàlla bëgg sëñ Tuubaa nee na dalla ala kawnin xalilan hibba alla ara man lam yakun muhibba lii teg ne ab xarit yàlla ak soppeeku laa mooy du ma gis ku ma sopp fi mu toll sëriñ bi ñi ko doon yóbbu ci jublu ko sonal sax day def léeg-léeg ab tubaab day jékki-jékki rek mobilisé bëgg ko mbëggeel boo xam du ko tey loolu sëñ dafa nekk indi saa atuwaab day ñëw di ko liggéeyal nii ko mën di liggéey ngir ak cofeel moom ci ko di ko wax sa boole moo tax sëriñ Jean benn bis may jógee moom sëriñ nit jox ma dikkal lañ ko dem joxal ma sëriñ bi ma wax ak cofeel ci moom bu ñu jox ko ni ko ku tudd jiw moo la ko jox mu ne ma fu ma xamee ma ne ko amul nen daf laa sopp lool mu ne ma may itam dañ ne ko sopp naa may itam dañu sopp naa te am na benn yonente bu laa joxoon boromam ne ko damaa bëgg nga wan ma kii gën a gën a kii la gën a ci nit ñi ma bëgg ko ngir sa jëm yàlla li ko kooka mooy ku ragal yàlla xol set aw yaram te du yëkkati tànk mu jëm ci kenn ci ànd du ñaaw du yëkkati lu ñaaw jëmee ko ci nit te day ab xolam day ragal yàlla aw yaramam set ñett yëpp la jëm si ni ko kooka mooy ki nga xam ne daf may bëgg képp ku ma bëgg mu bëgg ko di ma bëgg loo it nit di fexe ba nit ñi bëgg ma yonente bi ne ko man de yàlla xam nga ni bëgg naa xam nga ni ku bëgg bëgg waaye nu may fexe ba nit ñi bëgg nu may fexe ba nit ñi bëgg mooy danga leen di fàttali samay xéwal di leen fàttali sama màgg di leen fàttali samay balaa ndax xéwal yi dina tax ñu bëgg ma màgg gi dina tax ñu war ma balaa yi dina tax ñu ragal ma te ñett yooyu rek yàlla soxla ci ab jaam na ko bëgg na nga ko ragal na nga seen genre doon ko bañoon loxoy kese coow loxoy kese. ñoom daal di ci foo toll na nga yem ci dara. la fekk kayit nga yor jiitu ba xam di jàng mbaa nga yor loolu xas di jàng mbaa ngay for xob yi waaye toog loolu ko dégg. danaa leen lu ngeen di xoppal ko man dama bëgg ñaan la ma wax fa sama xel tam ni ko xanaa gudd fan xaalis rek mu ni ma ak xam-xam ak diine ma nga ko ak xam-xam ak diine waaw ma ne xam-xam ak diine la ma wax ma xool ba xam ni man maa jaawale waaye xam-xam ak diine bi ci lépp nekk ma ne nag xam-xam ak diine la ma digal ndeke mooy adduna ak alaaka xam-xam ñaar xam-xamu adduna bi nekk ak xam-xamu diine waaw xam-xamu diine ci yéen tamit baale yàlla wàcce arab la ñu war a jàngi làkku arab ngir dégg xam-xam boobu xam-xamu adduna xam-xamu technologie bi ñuy jëriñoo ci adduna ci tubaab bi da ko ñu war a jàngi làkk woowu ngir dégg ngir jàng xam-xam boobu léegi lu ñu dese sëriñ bi bi mu tax jóg suñu mag bi tubaab bi ci moom ne ko ñun de dañoo war a def bàyyee leen réew tey ñu ci loxo yi ñoo xam dañ leen di jàngal suñu njàng ñii mën leen ko dégg ñu bëggoon nag léegi ñuy saytu ne ñi ngeen jox na mbooloo bu ñu jàngal leen sëñ bi gisoo seeg lenn ci mag bi am ko ko ni si tubaab bi sëñ bi ñu seqal yow ëpp ñu jox kenn ñu dugg daal man dem sëñ Mbacke Boussa day borom xam-xam xel mi rafet dana sëñ bi da ngay gisoo ak ñun am lu ma jox sëñ bi damay gisoo ak mu ne kon nee leen nañ ñu xam-xam bi te bàyyee nu suuf yàq ndekete xam-xam bi ñu jël ko te tey yàq képp mooy dëkk nañ jël xam-xam bi te bàyyi fi bañ julee di jàng diine yi diine bu ñu ko jàng nañ jàng diine te bàyyi fa aada ja aada ja topp dem si seen daan wax naar yi diine ñu ko naar yi arab arab diine joon boole moom tubaab bi adduna la moom la boole moom rek nga a topp ci ginnaaw naar daf maa yor ku mel ni moom nag jëmu jooju la war mooy def ko royte def ko ay mbiram di segg ay biram seet ni ci mën a jàllale suñu bopp jàllale ci àdduna ay xalaatam ak jëfam lépp lu mu yëngatu ñu segg ko sattal ko jàngat ko ba xam lu ñu ci war a mën a jàngate ndax ay jëmm la ñu doon yoo xam ne bu leen suñu borom feeñalee tey bala mu leen a feeñal da yàgg loolu loolu kon ko teg ci seen loxo xam ne ak góorgóorlu waaw te sàmm ko kon xanaa loolu mooy lii li ñu bëggoon wax la ca des nag mooy li daal daan yëngatu mooy jàngale alxuraan rek jàngale alxuraan rek yare te jamono jii ñu toll mu na ni adduna dafa yàqu yàq yar ci mu mel ni dañoo foog nga naan yëpp opposé loolu it mooy li suñu borom wax ñu ngi doon naan yëf loolu wallahi day mel ni leeru suñu borom lañ bëgg a woon ba mu fay waaye fekk ne leeru yàlla ngir ñu fay leer boobu nag pexe man ci mooy. xëpp suuf ci bëti nit ñi ba leer boobu ñu ko mën a gis moo tax nag ñu nañoo fexe ba jaral ba ñuy sëñ ba set di jéem a luqat ci leer boobu di ko jéem a jàngat di jéem a góorgóorlu di jéem a roy ndax bu boobaa a doon suñu jënd bopp ndax li muy tekki mooy yow nga doon ab wolof te doonatoo ab a tey bi nga doon ab a te doonoo leneen sëñ Saal ba genn guddi mu ne bu gaawoo na nga wat mën ko wax mën nga ndax nit ki lu muy bañ ñu nirale ko moom daal di boo nekkee ci biir naar nuru leen te doo ko kenn du jàpp naa waaye xaritaan bi lay jàpp boo nekkee ci biir tubaab nuru leen te doo ko man xam naa ab gurmat li lay jàpp boo nekkee ci biir pël nuru leen te doo ko man ma nit ki lu mu bëggul ñu ko moom bu mu ko di ma sëriñ bi dama si naa génn ci jàkk dugal tànkam ci dàll daj ci dara mu génne tànk bi daal ni seet leen dàll boobu dafa mel ni xam lu nekk waaye bu dee sandax bu leen ko rey mu ni ko waaye bañ daal di xam ab sandax wala jàng wala ko ñu ko kon nit ki lu mu bañ ñu jaawale ko bu mu leen nekk jërëjëf ñoo ngi delloo di sant mbokk mi. jërëjëf waaw jërëjëf gërëm ñaanal yàlla seen ñi nga xam ne moom la taxaw si borom moo ko soxla si ñoom nekk si borom jàkkee nañu ko wér leen tegal si jërëjëf jazakumullah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah.